ليلة مولد النبي ليلة مولد النبي ليلة mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di am mbégte jàkkaarloowaat yéen di sant yàlla bu baax moom mi nga xam ne moo ñu mayoon daaw ñu jàkkaarloog yéen ren it mu mayaat ñu ko di ci sant yàlla bu baax ndax am nañu ko teewoon daaw te teewuñ ko ren yàlla na suñu borom yërëm leen te jéggal leen ñun ñu fi teew it yal na suñu borom xiiriñ ci njub ak baax ak lim bëgg ñu dunde ko ba koroog ñuy def na ñooña ñu ngi sant bu baax jàkkaarluwaay yéen kon ñu ko waxee di ñaanal Serigne Seydil Mokhtar xalifa général de Mouride mu yàgg fi lool te wér ba lim naa sëriñ Serigne Touba lépp mu àggale ko ñu am mbégte it jàkkaarloog yéen ci sunu bis bu rëy bi ni waajal muy gàmmu daaxiratu nuurul absaar te ñu xamee ko daayira bi ba foo tuddee daahirat Nour Absar ñu teg ci gàmmu loolu ñu ngi koy sant yàlla di ñaan gàmmu li mu làmboo lépp mu këpp suñu kaw kon ci jotaay boobu moo tax ñu toog tey ngir waxtaane lu jëm ci bis boobu bu ko defee programme yi kàddu yi ni muy tëj de Sëriñ Bassirou Dramé dana jël kàddu wax ci wàllu culturel mooy lépp loo xam ne dafa day yëngatu ci wàllu daara bi ci wàllu xam-xam buñ ko waxee nag yaatu na lool ci biir moom bu ñëwee dañ ci indi ak yaatal bu baax incha allah euh, sëriñ Modou ja moom ci dana ñëw jëmale kàddoom ci organisation organisation yi buñ ko tuddee yaatu na lool ci biir waaye moom am na lu mu ci tënk bu ñëwee dana ko leeral sëriñ Cheikh Kaala Dia moom mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey boobu bépp moom yi dana ñëw ci wàllu cosaanal gàmm gi dana soññee it woote waa woote woote ci wàllu kilifa yeeg xaritu daayira bépp soxna Maguette ja moom it ci muy jiite kàddu soxna yi moom it dana ñëw ci euh, soññ soxna yi ñun war a teew ci gàmm gi soññ waaye ci wàllu bi mu nekkee ndax moom ci culture la bokk Serigne Thierno sekk it dana yëkkati kàddu wax ci côté euh, ñi nga xam ne dañoo bokk ci daayira ba noppi te nekk ci côté wu yenn réew yi lu mel ne Europe euh, lu mel ne Italie Espagne France Brésil moom dana wax ci côté boobu soññ leen bu baax ci nun war a waajale gàmm gi mbokk yi daal bu ñu yàlla mayee euh, loolu lañ bëgg jottali mbokk yi kon ñu ànd ak teewlu euh, njëkkee si kàddu yi Serigne Bassirou yi mi nga xam ne moo wàllu culturel bi su ko defee jox ko kàddu yi. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di jiital ci sunu nuyoo akub siyaar xalifa général di murit sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke di ñaan sunu borom yàggal ko fi ak mbooleem njabootuk sëriñ bi ci ginnaawam gépp lépp loo xam ne sumb na ko mu àggale ko tey sumb di àggale ñuy fekkee jotaay bi nag li ko waral ni ko sëriñ Fallou ja waxee mooy bis bi nga xam ne mi ngi ci sunu kanam mooy bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bisu Serigne Touba di bisu mboolem jullit yëpp ñu am taxawaay boo xam ne daa daaira Nuurul Absar fii ci Touba Kër Niang mi ngi ko ci taxaw muy taxawaay bu am solo ñoom la ñuy waajal di ci soññe bis boobu buñ ci àggee incha allahu taala nii lañ ci fas yéenee doxee. li jiitu bisu gàmm gi am na bis bu ko jiitu ñu ciy def conférence bu mag di ko gàttandoo bis bi conférence bi nag ñoo ngi ciy woo mbooleem ab soppe ak mbooleem boroom xam-xam ak mbooleem waa dëkk bépp conférence bi mi ngi tàmbali vingt-deux heures Sëriñ Xaafiya Ñaŋ ñëpp xam ko ci ab xam-xamam ci ak bëggub sëriñ bi ak ci leeru làmmiñam moom leen fa yéenee àndal moo waxtaan ak ñun ci diggante sëriñ bi ak yonent bi sallallahu alayhi wa bis boobu buñ ci àggee incha allahu taala ñoo ngi soññ mboolem ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayira bi rawatina waa membre culturel ñu leen di ñaan ñu teel a génn teel a waaj teel a ñëw ca bërëb ba ndax ñu mën a dalal gan ñi niñ ko bëggee. vingt heures Charo bëgg na mbooleem membre culture mu fekk la ci bërëb ba boo ko defee vingt une fu mu jotee ñu dugal ñëpp ci biir baas bi bu vingt deux heures jotee waxtaan wi tàmbali balaa moo guddi lépp loo xam ne bëgg nañ ko faa def ñu mën koo matale li ko lu jiitu waxtaan wi am na kuréelu xasida bu fay jàng muy kuréelu daayira bi di kuréelu numéro 4 bi bu bu nopp bu ñu noppee sëriñ boole mbay dina fa yëkkati ay xasida bu ñu noppee waxtaan wi soog a tàmbali bisub ñaareel ba ñu fas yéene ko dundalee bis bi lépp bëccëg gi ak guddi gi ndax bëccëg gi li commencé ñeenti waxtu fas nañ fa yéene amal ab tarib xasida yoo boo xam ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci daayira bi ñoo koy def muy soxna yi nekk ci daayira bi doon njàng fii ci daara ji ñoom lañ fas yéene ñëw liñ doon jàng ñëw feeñal ko foofu ci bis bi wane liggéey bi nga xam ne moom la daayira Nourou Absar di taxaw ak moom lay liggéey ñeenti waxtu ba 19 euh, heures buñ fa jógee guddi gi lépp li ci des lépp ba asamaan set comme ni ko daan defee rek noonu lañ koy fas yéenee defee muy fanaane njàngum xasida ba asamaan set bis boobu nag euh, maanaam gàmmu gi ku nekk xam na gàmmu fi ko sëriñ bi tegoon ak dayo bi nga xam ne moom la ko joxoon ak yitte ji nga xam ne moom la sëriñ bi joxoon gàmmu ba mu bu mosaan a ñëw mbégte mi muy àndal ak cawarte gi muy am moom ci boppam ba da ko daan defal boppam da ko daan dundal bu baax a baax a baax a baax ba am na wax yu am solo yoo xam ne wax na ko ci moo demee ci xasid ak jës bu jës bul xulóob bari na ci ay leeral yoo xam ne sëriñ bi mi ngi ko ciy def ndax mi ngi ci moom ma ngay wax ci biir xasida ga laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi tahabi wa tuhrisi taasumi waxaat ci biir xasida ga ne fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musarafi maalan bi xayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar yowma xunayni wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayrul wara mu fahimi di ay bayit yu am solo yoo xam ne sëriñ bi mi ngi leeral képp koo ne danga da ngay di taxawu guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li la ci sunu borom dencal ci aw yiw ak li nga xam ne moom lay fare ay bàkkaar ak ni muy dindee ay coona di leeral képp koo xam ne danga jël sa ñaq moo xam ab dërëm la walla lu mën a doon nga def ko ci guddi googu ngir màggalee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ci sunu borom di defal ci aw yiw bay leeral ne képp koo xam ne teew nga ci guddi googu ba asamaan set di dundal di ko dundal ci ni mu ko waxee taxsimuhu bi sunnati yaquuduna lil jannati bi xesdiyaadul minnati li moxlisin muhasami faman yuhasim mawlida nabiyuna baabil huda fala yuhazabul xada fahtariman wa xasami mu ngi leeral képp koo xam ne guddi googu teew nga teew nga ci guddi gi dangay mel ni koo xam ne dafa teewoon ca badar ah te badar ku nekk xam na ña fa teewoon li li cër bi ñu am ci lislaam fas yi nga xam ne ñoo doon ñoom ñoom la moom lañ waroon sax seeni fuuritu gémmiñe ku nekk xam nga dégg nga li ci yontu bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon bépp guddi boo xam ne nee nañ la boo ca teewee mel na ni mel nga ni ku teew ca badar guddi gu guddi gu jara fonk la guddi gu jara sàmmante la guddi goo xam ne maanaam benn la ci at mi benn la ci bisi te eh, loo xam ne bu demee balaa moo ñëwaat di déwén te kenn xamul ba xam di nga fekkee déwén wala boo fekkee déwén ndax di nga am kàttanu mën a teewee ju guddi googu bis boobu boo ci àggee te man koo teewee ngeen nga na nga war a njëkkante war a wane positif ci bis boobu ba buy dem nga am ci loo xam ne dina xëy na lu nangu sunu borom kese ko xam waaye nga wane ak njàmbaar foo sa kem kàttan toll nga def ko ndax sëriñ Saaliw radiyallahu anhu daan na wax naan alxuraan bu dee soññee ci ne na ngeen ragal yàlla. na cay toll xaqatu xeet yi wax na it maa istataxtum comme li ngeen man ah, léegi na guddi gu mel noonu kon nanu fexe ba buñ ci àggee incha allahu taala ñu fas yéene ko dundal ni ko sëriñ bi bëggee teg ko ci sunna teg ko ci lislaam fanaanee jàngum xasida ak alquran te lépp dëpp ak bëggub sëriñ bi ñoo ngi ñaan ci kàttanug sëriñ bi képp koo xam ne ñëw nga ànd ak ñoon guddi googu sunu borom defal la tawféex ak taysiir defal la aajo ju faju àdduna ak àllaaxira te sunu borom boole ñu may na ñu fekkee ko ci jàmm ak salaam ñu koy séentu nag ni ñu leen ko waxee bis bu njëkk bi di talaata fas nañ yéene ànd ak sëriñ Xaafiya Ñang muy waxtaan ak ñun ci diggante sëriñ bi ak sunna ak ni mu bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bisub ñaareel bi noonu ñu leen ko waxee mm, ngoon gi tarib xasida guddi gi njàngum xasida ak alquran ba asamaan set bu ko defee ñu ñaanalante ba yeneen i jamono ñaan nañ ci sunu borom yóbbu ci jàmm ak salaam ñu fekkee ko ci jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant Serigne Touba Seexul Xaddim bu baax a baax di nuyu mbokk jullit ak mbokk taalib yi fi teew yëpp. li yëkkati sunu kàddu nag di ko jëme ci li nga xam ne moom lu ñu jiite mooy organisation bi li jëm ci gàmm gi ak lu dul gàmm gi moo ab soññe bu ñu ciy def rek ci ñi nga xam ne ñooñ la ñoom lañ jiite ak képp ko bokk ci dayra bi ak képp koy dégg sunu kàddu muy nañ ko taxawee dañ ko daan taxawee mooy nañu teel a génn ndegam sopp na yàlla bu samdee fépp fu matériel nekk ñu jëli ko baas ko defee kon nañ ko daan defee ñu ngi ñaan daal samedi nit ñëpp génn ñu commencé baas bi ndax ba ñu àgg ci altine ji di sur euh, talaata ji di suru conférence bi lépp noppi ñu ngi son ñëpp li ci mooy nañ ko daan defee rek parce que bu ñu daan taxawee nañ taxawee bu ko raw lu ñu daan defit lu ñu daan defit nañ ko yokk ndax kenn ku ne xam ne ne baas bi dayo bi rëy na rëyaay goo xam nii Euh, mëne su ko def ci ay minutes mëne su ko def ci ay waxtu yu néew mëne su ko def ci benn fan kon il faut dana jël temps kon ñu ngi ñaan rek euh, ñëpp teel a génn lu mën a jàppit nga bàyyi ko xëy na jamono ji xat na waaye loo xam ne bu dikkee bu la bu dikkee balaa dikkaat déwén loolu lu mën a jàpp war na ko mën a bàyyi ngir jëm Sëriñ Tuubaa ñu jaayante ko rek teel a génn baas ko def ko nañ ko daan defee ba dara du ci échec ñu ngi soññi ñëpp képp ku bokk ci organisation bi wala nga. bokk ci dër wala nga bëgg lu baax ñu ngi la cee woo ci dale soññi ñu teel a génn ci samedi bi bu soobee yàlla incha allah ñu ngi jéglu ñëpp ci kàddu yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokk taalibe yi noo ngi nuyu ñëpp di ziyaari ñëpp di baalu ñëpp àq te di baal ñëpp àq tey dolli ab woote aku soññee ci bis bi ñu jëm di guddi gàmm gu mag gi nga xam ni dañ koy amal at mu jot mu ne muy daayiratu Nuurul Absar di ko amal fii ci tuubaa Kër Ñang tolloog kër sëriñ bu Mbàkke moom sëriñ Fallilu di guddi gu rëy guddi gu mag guddi gu màgg guddi goo xam it moom la waa daaira Nuuru Absar jël muy seenu bis di ci woo mbokk jullit yépp di ci woo mbokk taalibe yépp ba suñ fa ba fu suñ kàddu yem ñoo ngi woo ñëpp ngir jëmm yàlla ak yonent bi salallaahu taala alayhi wa ñu ñëw ci guddi gi te jàpp lañu ci ba mboolem luñ ciy sàkku di ngërëmal sëñ bi ñu am ko ci di dolli di soññee ñi nga xam ni ñooy mbokki dayre bi yi nekk bitim réew di leen xamal ni guddi gi agsi na nañ ko daan taxawee ci at mu ne yàlla fekke fekkeel fekkewaat nañ dimbali nañu ba ñu fekkewaat ko ren nañ ci daan taxawe seen pëstéef seen bu yëg ak seen yëngu ñi nga xam ni yàlla dogal na ñu fekk ñu ñu ñu ñu defe ko fi fii senegal ñoom it ñoo ngi leen ci woo te ñu nekk ci dëkk bi ñenn ñi nga xam ne ñaa nga faat lañu la ñu ci daan def ba léegi ñoo ngi leen koy fàttali muy lu jëm ci wàllu hàddi yi nga xam ne daanañ ko joxe di koy yónnee di ko dajale ci suñu jëwriñ yi ñu am foofa bitim réew mbooleem fu fu fa nekk am nañ fa sunu jëwriñ ju ñu fa teewal joo xam ni daanañ def at mu jot mu soññee dajale xadde yi andi ko ñu defal leen ko ci bis bi loola it ñoo ngi leen koy yëgalaat bu baax di leen ci woo te di leen ci soññ tey di leen ci séentu di leen ci xaarit nag di dolli di xamal mbokki taalibe yi nga xam ni ñoom lañ bokkal bis bi te ñu bokk ñoom nekk fii te ñuy teewe tey joxe yëf yi bët bu set ñooñu tamit ñoo ngi leen di xamal ni guddi gi agsi na tey nañ ko daan defee dara soppeeku ca xanaa dolli mbooleem luñ ca daan yittewoo te it mbooleem pëstéef buñ ca daan def ak pas-pas ak yitte ñu yokk ko suñu kem kàttan ndimbalu sëriñ bi nga xam ne moo ci daan fekk ba saa buñ ci génnee am ci ndam yàlla nañ ci fekkaat ren ba ñu amaat ci ndam lu raw fuuf yéen ci daan am te yàlla dimbali ñu ba ndam luñ ci amit ñu xam ni ndimbalu sëriñ bi la waaye du sunu njàmbaar loolu nag bawuñ ci góor bawuñ ci jigéen bawuñ ci mag bawuñ ci ndaw baas baat ak guddi conférence googu nga xam ni mooy mooy guddi gi jiitu te sëriñ Haafiya Ñang mi nga xam ni ku ne xam na ko ci xam-xamam bu sell ci bëggu yoon wi ci yàgga teewe guddi yu mel noonu di ci indi ay waxtaan ak i leeral yoo xam ni lépp njariñ lay doon moo ñu koy taxawal ak mbooleem invité yi nga xam ne invité nañ leen ci guddi googu teyit at mu jot ñu ko daan ànd ak ñun ku ci ku koo xam ne ku lim nag juum waaye ku ci nekk daal ñoo ngi la koy yëgal di la ko fàttali ak ñi nga xam ni yàlla dogal na daawuñ ko teewee te ren ñu ne fi ñoo ngi leen koy yëgal di leen soññ bu baax a baax ñun ñi nga xam ne ñooy teeru gan ñett ñoo ngi leen di xamal nañu daan def nañu ko yokk ren muy dal gi ak dalal gan ñi yaatal leen dimbali leen gan gu ci nekk lu mu soxla ñu taxaw ca ca jàppale leen ba bu ñu fi jógee seen xol sedd ñuy ñaanati ñu àggat ci bis bi ba yàkkamti fee ñëw loolu ñu ci daan am laal ñoo ngi ñaan ngir jëmmi yàlla ak yonent ak sëriñ bi képp kuñ ci dimbali jàppaleñ ci te xam ni ñoo bokk liggéey bi liggéeyal sëriñ bi taxawu guddi Seydina Mohamed googu nga xam ni sëriñ Touba daana ko taxawal boppam te daan ci soññee te daan ci wane mbégte ak ay xéewal yu bari yoo xam ni ci ay nettali yu leer nettali nañ ñu ko loola nag moom la ñu taxawal te di ko dëgëral te di ci woo ñëpp du ci soññ ñëpp te di ca ne te di ca xaar ñëpp it nag yàlla nañ ci dugg ak bisimillahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilahi rabil alamina te ñu am ci ngërëm lu kawe te sax ci loolu mooy liggéeyal sëriñ bi mbooleem lu mel noonu rek yàlla nañ ci sax yàlla nañ ci sëriñ bi dimbali ba duñ wuuteeg lenn lu dul bëggug sëriñ bi saa yu ne ci jamono yu ne ànd kook sunu njaboot ak suñu baay ak suñuy rakk ak suñu wayjur yu jigéen ak yu góor wasalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar ci weer wu tedd bi nga xam ne moom lañu nekk te di leen ci ñaanal tawféex mboolem fu ab jullit mën a ne ci penku jant bi ak sowu bi ku dégg kàddu yi nag xam ne am na lu dëgmal si muy bis boo xam ne moo ñu génnee ci ak réer indi ñu ci ak leer muy bisub yonent bi sallallahu alayhi wa bis boo xam ne moo far suñuy njàqare indi sunum noflaay indi sunu texe tey ak ëllëg bis boobu nag moom la ñu dëgmal taxawaay bi nga xam ne moom la ci daayira bi daan am muy taxawaay bu mag taxawaay bu am solo boo xam ne képp koo xam ne bokk na ci daayira bi lu ñu di lu xam loolee lan fas yéene fàttaliwaat képp koo xam ne bokk na ci mbooloo mi ak fu mu mën di nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mi xam léegi nag li ci jiitu ñuy xam le rek li nga xam ne moo doonoon cosaanul gàmm gi fii ci daayira bi ndax lu yàgg la du benn at du ñaari at du ñett mën na ne ren mooy cinquième édition ren ndax lu yàgg la xëy na nag ñu koy defe nii ren ci ci tànt bi nañ ko xamee ci bundu chrétien bi moom suñ Fallou ren mooy juróom-benneel yoon ñu koy def waaye nag lu yàgg la lu daal daan taxawal ci jamono yi 2000 ba fi toll nii loole nag mooy cosaanul gàmmu gi fii ci daayira Nord Sarr koy defee it euh, muy di lu xam loo xam ne noonu la ko sëriñ bi jàngalee ndax damay wax ne euh, mbooloo mi lépp loo xam ne ñu koy defee dañ koy teg ci njàngaleem sëriñ bi ni mu jàngalee nag ñu dundale ko guddi yonent bi ngir ku ko dundale noonu dana la wommat ba tàbbal la aljana muy tax simaho bi sunnati yaquduna lil jannati bi xis diyaadin minnati li moxlisin maasami ku ko màggal te ci sunna dana la wommat ba ba dugal bil aljana teg ci sunna googu nag mooy ak sellal rek sellal te mooy jàng alxuraan jàng xasida def salaatu ala nabi def istixfaar te defaree bernde def lépp lu baax ngir jëm yàlla te àddi yàlla ko yonent bi te góor ñaak jigéen ñi cay daje yit lu baax loolu ñëpp la war ñoom ñëpp la war waaye ku nekk yit am barab boo ne ba jaxasoo gi bañ ci wuteeg sunna bañ ca am loolu képp ku ko def rek te nga ko ci li sëriñ bi jàngale te noonu lan xamee doxinu daayira bi loolu it la ñuy fàttaliwaat ñëpp ñu ñu ñu ñu teg ca ñu tege ci yoon woo te góorgóorlu ca ndax ka sëriñ bi daana wax ne njariñul xasida yi de bu doonoon fukk benn rek moo ci wàcc njariñul yónnent bi bu doonoon fukk benn rek moo ci wàcc ci àddina bi juróom-ñeent yëpp ma nga ca waggam ya daadi wax na xam ngeen lan lan lan moo ko fee jëlee ñu ne ko waaw mu ne bu ñuy jàng sama xasida yi daan xam ngeen nu mu mel ñu ne ko waaw mu ne mi ngi mel ne déem gu ñor ba boo ko laalee mu wadd boo ko laalee mu wadd ponkal ma gën a am laf te datt ba di ko yëngal nee na mag mu jóg soxna ko mbàkke ndaw rëtt rëtti mooy ndaw wadd gu wadd gu bari kon nag kon nii ñu koy defee dana rafet suñ dana rafet suñ njort dana rafet ci ne danañ jot loolu sëriñ bi wax lépp ndax am njàngaleem ku ko topp da nga gis lam diggee kon nag loolu ñu koy fàttali bokk yëpp te leen ci soññ it bu baax di woote woote boo xam ne day tënk mbooleem képp koo xam ne rek bokk na ci daayira bi ak fu mu mën di ne di tënk képp koo xam ne it wëlë na bi nga ak fu mu mën ne di leen woo ci bis boobu. di ko tàmbalee it ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal fii di kër ñi ngi ñu ne te ni borom dëkk bi di njabootu euh, sëñ moo Fadima Niang gépp ki te ki nekk ci bopp bi di Serigne Cheikh Niang ñu ngi ko koy di ko fàttali ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci ci ci ci kër ñëpp di ci di ko yëgal ku mel ne Cheikh Modou Fadal moom sëñ Modou Fadi Xari di wëllëree daari bi di lu ñëpp xam moom it ñu ngi koy fàttali. ak ku ci mel ne sëñ Moustapha Mahmoudan moom it ka di wëllëre daare bi di ñu ñëpp xam ak soxna muslim yi nga xam ne nag mooy moo moo sunu dëkkandoo di doomi sëñ Fallou di ab cër ci ñun ñu ngi koy dollee fàttali moom it bu baax ak ku mel ne sëñ Afia Guèye yi e, nga xam ne moom wëllëre daare bi mi ngi bëgg a yàgg lool moom it ñu ngi koy fàttali te di ko siyaar te di ko e, yëgal bis bu baax a baax ak képp koo xam ne rek e, wëllëre daare bi ndax ku lim rek da nga juum waaye dañ ci tudd ñoon rek waaye ñu lu bari la waaye nag ñëpp rek ku dégg woote bi rek na xam ne eh, daayira bi woo na la ci bis boobu xam ne bis bi bisub ñëpp la ndax bisub màggal ganu àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon ku ci sob di taxawal it boo wooy woo nga ci ñëpp woo nga ko moom bis bi woo nga ko war a wuy si kon bisub ñëpp la kon ñu ngi ci woo ñëpp di ci soññi ak di ci woo di ci fàttali suñu jur yi nga xam ne ñoom la neewal ci koñ bi muy góor yi muy jigéen yi bu ne yu góor yi bu ñu tuddee ñii rek day mel ne danañ yóbbaale ñëpp ku ci mel ne sunu baay mbay ja ak baay Mourou may ja ak baay Cheikh Diop ja ak baay Ndiagaloo danañ yóbbaale mboolem rek kilifa tey suñuy waajur ne ci koñ bi ñooñu mën leen yóbbaale kon nag ñu ngi woo ñëpp tey soññi ñëpp tey wax ñu waajal ko te tàbbi ci ak bisimilah rahmaan génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te lépp loo xam ne si nekk na ci yiw ak ngëneel suñu boroom dajale ñoo ak loolo te dimbali ñu boppam te may ñu ak sellal saahiran wa baatina ba lépp loo xam ne digg nañ ko ci guddig yonent bi ñu man koo am na gëne nam gëne te mucc ci yëpp ayib bépp yàq ñu ngi siyaar ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sunu mbokk jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziyaara tey jéggulu bu baax a baax di soññi eh, di soññee bu baax a baax ci lu ñu bokk nga xam ne ni yàgg nañ koo taxawal fii ci Touba Kër Ñang muy daa daayira nuur daayiratu absar di ko taxawal muy gàmmu di gàmmu màggal eh, juddu yonente bi salallaahu taala alayhi wa sallam ñuy soññee bu baax a baax ci sunu mbokku jigéen yi ñu taxawoo ca comme nañ ko daan taxawee tarawal taxawaay ba yokku pësteef bi taxaw ci bu baax a baax yokku pësteef bi buñ leen soññee te dara kenn ku ne fa nga daan jàpp nanga nanga fa jàppee ñu ko raw te xam ne Serigne Touba rek lañ ciy liggéeyal ñoo ngi soññi ñëpp nag di woo ñëpp sunu maam yi ci koñ bi suñu yaay yi sunu bàjjan yi suñu mag yi suñu rakk yi di ci jiital suñu xarit suñu yaay suñu bàjjan di suñu lépp nga xam ne fu ñu taxaw gis ko sunu kanam di soxna muslatu soxna muslimatu nu ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal di ko ci soññ bu baax a baax te di ko ñaanal yàlla suñu borom mu guddal fanam lool te may ko wér barke Cheikhul Xadim ñu góor góorgóorlu bu baax a baax comme nañ ko daan taxawale nag tey sellal bu baax a baax nag sol gi bu ñuy ñëw nañ préparé bu baax sol lu sell te xam ne dañoo màggal si guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mu nekk guddi gu màgg guddi gu kawe guddi gu bari ngëneel kon nag waruñu koo neenal bu ñuy ñëw war nañoo sellal bu baax a baax te yiwee bis bu njëkk bi war nañoo teel a ñëw bu baax a baax ndax kenn kenn du invité ay gan ba pare ñu jiitu la kon nag waruñu nañu teel a ñëw organiser wu toog balaa gan ñee ñëw ñu ñëw dalal leen surtout waa culture bi nga xam ne ñoo war a dalal si gan yi bu boobaa nañ teel a ñëw ba gan gu ñëw dinañ mën a wax ak yow waxtaan ak yow jàllale la fa ci biir pour nga toog waaw boo ko defee suuru gàmm gi nañ góorgóorlu bu baax a baax ci durus xasida yi durus ko comme nañ ko nan defee te yokk ko nu ko raw nag waaw durus ko ci alxuraan ak xaddi ak ak. duru ko si alxuraan ak xasida yi salaatu ala nabi istaxfaar yi lépp luy dundal guddi gi rek ñu góorlu ci bu baax a baax a baax même niñ ko daan defee nga xam ne balaa ma gàmmu gee ñëw alxuraan yi ñu daan séddale ñu di ko jàng fu waaye nekk ci sa kër nga di ci góorgóorlu bu baax a baax ñu ngi leen koy fàttale waaye mën a jàng ci kaamil alxuraan yi eh, xasida yi salaatu ala nabi lu ci waay man comme nañ ko daan defee nañ ko defee noonu balaa gàmmu gee ñëw ñu teeroo ko gàmmu gi ndax nekk na bis bu màgg ci ñun bis bu rëy ci ñun ñoo ngi ciy woo ñëpp bu baax a baax a baax jërëjëf ñoo ngi jéggul salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare tey jéggulu ci wax ji ndax ndigal la rek ndigal moom jëfe rek tey lu kàdd yi fi jaar yépp te lépp lu ci waay wax rek yàlla na daje ngërëmal Sëriñ Tuubaa ñun nag fiñ suñuy kàddu jëm mooy daayira bi dafa am procès bu mu dëgmal euh, di ci euh, sàkku ndimbalal ñëpp muy dafa bëgg kërug boppam goo xamante ne bii da cee fas yéene liggéeyal Serigne Touba kër gi nag niñ ko xalaate mooy dañ ci sàkku ndimbalal ñëpp rek ku nekk ci biir réew mi ku nekk ci bitim réew foo waay mën a nekk rek ñu ciy sàkku sa ndimbal biñ dajee doon ci xalaat nag ni ko mbokk yi mooy am na sas yoo xam ne fukki junni lañ ko tàmbalee am yoo xam ne juróomi junni lañ ko tàmbalee am yoo xam ne ñetti junni lañ ko tàmbalee ku mën lu ëpp looloot ñu ngi la ci tàllal loxo daa tollook mm, mbir boo koy tàmbali du ñàkk foo ko foo ko tàmbalee maanaam mbir boo du ñàkk foo tàmbalee moo waral ñu wutal ko ay sas def ko ñetti pàcc waaye nag képp koo xamante ni mën ngaa jaayante wutal ñu kër geet ñu ngi la ci tàllal loxo képp ko xam ne sas yi wax man nga lu ko ëppit ñu ngi la ci tàll loxo di ci sàkku ndimbalal ñëpp di ci wax ne képp koo xamante ni bëgg nga ci lu gën a leer nag numéro téléphone yi ñu joxe képp ku ci woote da nga ci am lu gën a leer muy 77 134 60 134 69 17 ak 76 744 47 48. ñu ngi jégalu ñëpp ci kàddu yi wax salaamaaleykum wa euh, mbokk yi kon kàddu yaa ngoog ñu ngi sant sëriñ Touba bu baax kàddu fi jóge yëpp am na solo lool di ko fàttaliwaat sun euh, mbokki taalib yi mbokk yi Serigne yi nga xam ne moom lañ waaj tudd ku ci mel ne waa Kër Ñang te Serigne seex Ñang nekk ci bopp bi ñu leen koy fàttali bu baax Serigne bu Mbacke Fadilu nekk it sunu sëriñ dëkk ak ñun ubbil ñu këram fu ñu neex jaar. ñu koy defee ci buntu këram it ñu ñu ngi koy ñaanal suñ borom yàggal ko fi te yéen a yi rëy ji am pour ñu màggali ko këram lépp suñ borom fay ko ko di ko yëgal it xarit daari ba tey sëñ Fallou Mbacke moom sëriñ Modou Fatou Khari sëriñ Moustapha Mahmoudan ñi ngi koy yëgal waa kër sëriñ Massamba yëpp suñu jiital sëriñ Moustapha Massamba di di ko yëgal it soxna Muslim Matu Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal di ko di suñu dëkkandoo mm, moom it bu ñu neexee ne mooy njiital soxna yi ndax réunion sax da koy ñëw ci daara bi ñu ngi koy siyaar bu baax di ko fàttali di ko yëgal yi soxna Mbène Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Fadel dëkk fii ci Kër Ñang ba tey di suñu dëkkandoo di xartu daayira bi di ko yëgal suñu yaay suñu waajur yëpp euh, di ko yëgal it suñu waajur góor yëpp rek ni ko Cheikh xaala bu ñu tuddee suñu baay Mbéja ak baay Njëgaloo ak baay Mudumay mel na na tudd nañ ñëpp kon ñu bàyyi ci xel ci ne gàmmu gaa ngoog bi it naal yi nekk ci kanamam rëy na lool euh, lu bëree bëri la lool ñu mën cee tudd benn rek boo xam ne Serigne Touba Lo doon na ci wax mooy kër sëñ Tuubaa goo xam ne daayira bi bëgg nañ ko te tij tijji bunt yi te yemali ko fenn nag ak ci kenn kon ñu ngi koy sonn ñëpp ku ñu fàtte tudd wala ñu juum ci kàddu yi ñu jégal ñu jégal ñu ko ci xam ne manqué manqué doomu aadama la suñ borom ci boppam moo ñu bind noonu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan waa koñ bi génn te xam ne yëf yi seen yëfa ñu jàpp ci ak ci bépp côté yàlla bu kenn mer yàlla na ñëpp bég barke Serigne Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. بدل ja قد بان صلى عليه من هداه هداه بالإكرام نور العزيم قد يرى به خسوة خيسرا mel